mbokk internet yi dal leen ak jàmm définitivement mel na ni Bougane Gueye Dany ak mouvement gëm sa bopp daal nañ leen di nag génne ci course bi nga xamante ni nag moo nekk course à la mairie de Dakar ginnaaw candidature am gi nga xam ne daf ko daal di nag déposé moom Bougane mel na ni rek mbir yi fu mu toll nii nag leer na ndax nag démb ñoom ñi fare ci préfecture bu Dakaaru nag daal di nañuy fësal li nga xamante ni mooy liste nag ñi nga xamante ni ñoom ñooy coalition yeeg liste parallèle yi nga xamante

Euh, coalition bi nga xam ne mooy wàllu Sénégal Benno Bokk Yaakaar euh, coalition bi nga xamante ni nag moom Horizon 2000 euh, 35 euh, bu Mbaye Product ak Compal ak tamit ñi à maintenir mon moom mooy bokk gis-gis ak parti euh, de l'union citoyenne buntu bi ñom ñi nak lañu ñu di retenir daal di koy dëxañ sax ci ben nak document go xamne dañ ko daal di fësal préfecture bi daal di nag wax ci nak niñ ko daal di tënkoo ne ñu nag par daray parparloo politique lu dul lepp dañ ko tënk euh, ci nak code électoral bi limu de di bind ak décret bu nak 2021 840 du 23 juin 2020 2021 euh, tollu ci nomination bu préfet bu euh, département bu Dakar ak i tamit décret bi nga xamanteni moy 2021 16 69 bu 15 octobre 2021 daldi nak aju ci convocation bu code électoral ci renouvellement euh, général bu mandat conseil départementaux ak municipaux yi le moo article bi ne nag dañoo déclaré ne li nga xamanteni moy arrêté bi limu daldi nak def moy ni rek déclaré recevable daldi nak tek ko ci ordre de dépôt dossier de candidature yi nga xam dañ ko présenté euh, par les partis et coalitions bu euh, parti politique également constitué euh, ci nak élection conseil municipal bu ville bu Ndakaaru le 23 janvier 2022 daal di koy aju nak ci ben tableau lañ ko daal di nag dëxëñ ci nak ordre d'arrivée manam ci nak limub ku njëkk daal di déposer lañ ko daal di def def nom du parti de la coalition du parti ville de Dakar parti convergence démocratique bokk gis-gis coalition Benno Bokk Yaakaar grande coalition Walou Sénégal coalition Sénégal 2035 euh, bu euh, ki nga xamné mom moom mooy Mame xam ngeen euh, grande coalition Walou Sénégal moy bi nga xamanteni ñom ñom euh, parti démocratique sénégalais ñoom Mamadou Diop de quoi agpads ñoo fa daal di nag bokk Abdoul Mbaye ñoom nak coalition Benno Bokk Yaakaar xam ko mom le président Macky Sall daldi di ki nga xamné moy Abdoulaye Diouf Sarr par des parti bi nga xamné moy convergence démocratique Bok gis-gis xam ngeen ko mom moy bu Pape Diop ancien maire bu Dakar euh, parti Union Citoyenne buntu bi xam ngeen ko itam moom moo daal di nag investir ki nga xamante ni moom mooy Soham El Wardini euh, ginnaaw mécontentement gi mu daal di am ci bi ñu tànnee kii di Barthélémy Diaz pour mairie bu Ndakaaru ci coalition Yewwi Askan Wi euh, coalition Yewwi Askan Wi itam nekk sixième bi nga xamante moo daal di nag ñëw ñoom ñu daal di investir ki nga xamante ni nag moom mooy Barthélemy euh, Diaz loolee tax nag jamono ji ñuy àddoo nag euh, lii mën a tënk ne rek Bougane Gueye dani ak mouvement gëm sa bopp dañ leen exclure ci course bi euh, moo tax recours bi ñu déposé ñoom coalition gëm sa bopp daan nañ koy rejeté loolee nag ci nag cour suprême si boppam nag lañ ko daal di nag may di si huit jours ngir mu daal di nag dem déposé li nga xamante ne moom mooy nag benn dernier recours boo xamante ni nag yoon may na ko ko